Euh, voilà ñu ngi fi ak euh, Françoise Hélène Guèye Françoise ñu ngi maa ngi leen di ziar di rafetlu seen euh, taxawaay ci accueil président bi di leen remercier pour cette invitation. d'accord nga def ñaata kilomètres pour fekk si tey président fii ci New York. mais on va dire six mille kilomètres parce que tey fi mu toll nii ba may départ ku jógee Dakar yaa may njëkk a yegg si New York donc Californie boo euh, jëlee. ñoom Delta la jël ma jël Delta mais ñoom direct la ñu am New York man damay jaar Atlanta door a mën a ñëw donc c'est comme si tu partais de Dakar pour venir à New York mais président Macky Sall moo ñu ko jaral ndax li mu def Sénégal ci Sénégal ndax li mu liggéeyal Afrique euh, grâce à sa personnalité grâce à son patriotisme et sa vision mu ak leadership am mu imposé euh, Afrique bokk tey ci euh, G20 mu nekk avancement bu am solo euh, nous ne pouvons pas occulter aussi lii nga xam ne tey mooy transformation yi mu def si euh, paysage euh, socio-économique bu Sénégal maanaam infrastructure de développement yi les routes parce que route mooy moyen de production parce que avec les routes c'est comme ça avec les de communication qu'on développe un pays donc euh, il a semé des graines qui vont aller au-delà

Euh, comme ni ñu koy waxee euh, suñu réew gémmiñ buy nàcc du wax jàmm mais on les comprend euh, on leur souhaite que ñu jël ñu jàng ay leçons des erreurs du passé apparemment nekkuñu di tirer les leçons malheureusement c'est des Sénégalais ils s'opposent nous on, on milite pour la démocratie sénégalaise dafa soxla opposition mais opposition bu saine malheureusement euh, ils ont péché parce que ay leaders yoo xam ni mënoo jiite lu day ni lutte démocratique te tapa pas un minimum de bagage intellectuel ou un minimum de connaissance de la réalité socioculturelle du Sénégal parce que méthode de lutte y ñu bëgg def Sénégal àndul ak suñu culture parce que ñun suñu culture dafa basé les socles les piliers de notre société mooy les chefs religieux mooy les anciens ñoom euh, seen xeex malheureusement day attaqué wu à ces piliers la donc loolu moo tax ñu gis résistance bi nga xam ni génn na ci euh, euh, de tous les bords de la société sénégalaise ñu taxaw faire face ba loolu moo indi tey ñu ñu interdire PASTEF ñu emprisonner seen leader et il continue à persister à faire les mêmes erreurs gis nga tey jii président ñëw na seen kanam dox euh, def recevoir ñu mu war a recevoir dox soxlaam ba dem Nations Unies ñoom ñu ngi taxaw ci boppu koñ ba di yuuxu xamuñu sax li xew <laughs> donc finalement kan la ñuy nax dañuy nax sa bopp seen bopp la ñuy nax di nax askan bi nga xam ni comprendre li xew fii mais ngay sàkkami te yooyoo dara sa bopp ngay nax en fait li ñuy def nii mooy sàkkami te yooyoo dara parce que li xew mooy président gisuleen leen président il ne dérange pas le président américain yi les regarde comme des guignols le du Sénégalais les Sénégalais conscients ñëpp ngi taxaw fi teewu président bi accueillir ko honorer ko ñoom ñu taxaw fa di yuuxu def yàq xaalis yàq énergie de manière boo xam ni futile puérile amul benn impact sur l'opinion ici à New York ou bien au niveau international par contre l'accueil que nous avons réservé au président est un accueil boo xam ni gisuma ko fi woon sax daaw les gens sont venus de partout mobiliser pour venir dire merci au président euh, renouveler seen confiance au président et puis jox ko garantie ni que ñu ngi ànd ak moom ba incha allah fa mu bëgg rek dinañ ko gunge ba mu ba mu ne ñu taxaw leen yem leen fii. incha allah dañuy gis nekkee Dakar day ànd ak garde corps boo gisee may ànd ak garde corps euh, Sénégal parce que urgence yi dafa bëri et dafa dépasser capacité wu état bi am naa droit nam as laaj. Euh, état mu jox ma ay garde corps mais bëgguma abuser de ces prérogatives là mais fii vous voyez on est euh, ils sont en surnombre faut tourner il y a de euh, il y a des des il y a les a FBI waa ñëpp ngi fii donc fii ku fi laal doomu aadama c'est parce que da ngay xaw wala xamoo li dëkk bi di doxee donc on est en sécurité complètement donc jawul may jël garde corps mais mais c'est une honte c'est une honte c'est une honte pour le Sénégal c'est une honte pour la démocratie sénégalaise que en 2023 qu'on agresse une femme au nom de ses, de, de, de ses convictions parce que il, elle n'a que de croire au candidat Macky Sall, au président Macky de ne pas accepter euh, le candidat Ousmane Sonko et c'est son droit le plus élémentaire, un droit garanti par la Constitution du Sénégal. Donc ñii c'est des animaux, c'est des sauvages, ils ne méritent même pas le nom de de militants, c'est juste une meute de sauvages qui est en train de bafouer les règles élémentaires du jeu démocratique. Moo tax je me réjouis que ces partis-là aient été bannis du paysage politique sénégalais et je pense que kii ñëw après le président Macky Sall d'entrée de jeu dafay dafa war a durcir le temps pour que mu mu maintenir cadence bi nga xam ni teg nañ ko léegi pour restaurer l'état de droit loolu la yaakaar ni euh, dès le départ et je souhaite que ce soit le candidat que le président a choisi bu yegsee moom monsieur Amadou Ba il va durcir le temps garder le rythme qui a été maintenu jusqu'à présent pour rétablir l'état de droit et protéger les Sénégalais contre des abus que nous avons vus ici à New naka ngay analyser choix c'est le choix déjà de la raison le choix de l'expérience le choix de la maturité le choix de la pratique de l'État parce que bu ñu fàtte que Amadou Ba était déjà un haut commis de l'État avant que le président Macky n'arrive au pouvoir te man nit ki boo ko doyloo bu tànnee la kii laa amoo loo ciy wax donc ki mu tànn doy nañu parce que xam nañu ni moom il a plus d'expérience et il est mieux informé que nous pour mu xam kan moo mën a téye Sénégal ci situation yi nga xam ni ci la ñu toll tey vu euh, la violence la recrudescence de la violence politique vu l'anarchisme bi nga xam ne dañ ko bëgg a instaurer comme mode de militantisme politique je crois que lui il est le mieux euh, placé pour xam ban candidat moo mu a tey Sénégal ci jamono yi parce que téye na Sénégal pendant tout ce temps là te vraiment on a été protégé du, du, du, du terrorisme qui est à nos portes on a été protégé du terrorisme domestique qui était en notre sein et donc lui il est moom moo xam candidat bi gën a am compétence yi mu mën a perpétuer son action du indi du indi dara du indi dara gis nga président du indi daara parce que ñooñu ku ci am dara tey ku ci doon dara tey président Macky Sall moo tax ku ci am ñaari militant c'est grâce aux nominations que le président Macky Sall a a daigné t'honorer donc bu président Macky Sall bu ñu taxawee jàkkaarloo président Macky Sall du ñu am dara ku ci taxaw jàkkaarloo ki nga xam ne moo la il t'a créé de nulle part il t'a sorti de de de de de la non-existence kenn xamul la woon mu tabax la jox la moyen teg la fenn nga dem ba beew foog ni mën nga taxaw jàkkaarloog moom. c'est parce que da ngaa xamul Sénégal yi nu ñu doxalee parce que Sénégal dañoo gëm ngor dañoo gëm loyauté dañoo gëm euh, benn genre euh, colère quoi nit da nga war am colère Mambay Diaw candidat la moom ak ay ñeneen. mais man pour man man xooluma leen sax c'est pour vous dire je vous les écoute même pas je me focalise sur le président de la République sur son choix parce que xam naa ne c'est le choix qui va garantir la sécurité du Sénégal qui va garantir la préservation des acquis qui va garantir la paix sociale te man c'est ça qui m'intéresse